daf ko doon imposé euh, jàngalekat yi ak ndongo yi ubbi teg l'école ji euh, ren ji mu mel ni kon Mamadou Talla jëwriñ bi ñu dénk njàng mu suufe mi yëkkati na si ay kàddu xam na ne kon euh, wàllum ñàkku mi ci Covid bi kenn mën su ko imposé ay jàngalekat da leen ni neex ñu dem ñàkku ji démb la ko xam le gannaaw ba mu doon sekk waxtaan ak yenn ci ay kuréelu syndicat yi Elhadji Malick Youm bokkoon sa ñoom ñu teewlu ko communication ministère de la santé moo am problème parce que ñoom ni ñu ko waxee dafa mel ni lu ñu togg la nas ko jëmale ko ci jàngalekat yi te bu dee lool dafa am tamit waroon nañ si toog waxtaan ceeg nit ñi pour xam ni muy demee kon communication boobu noonu ñoom ñu defoon ba ne dañu jàpp app bu nga xam ne mooy ouverture des classes 2021 2022 ñu ne balaa muy am daañu ñàkk ñëpp loolu moom moo indi kon tey réaction bi syndicat yi amoon ñoom tamit ñu rafetlu ko ne fi mu toll nii toutes les façons ñaari ministères yi ñu ngi gën waxtaan pour xool ensemble naka la ñuy avancer lenn lenn li mooy que dafa am rek ay doses yu nga xam ne nii peut-être ñoom ministère santé dañ koy jël jox ko ministère éducation jeex na fa lay yem ku bëgg a ñàkku ñàkku ku bëggul ñàkku doo ñàkku jeex na tàkk voilà euh, euh, El Hadj dafa mel ni coow li kon jaratu ko de kenn imposé wu li nga xam ne moom mooy ñax ko bi ndongo yeex euh, jàngalekat yi non wax la joo xam ne leeragul ba léegi parce que gouvernement gouvernement la gouvernement la rek ministre bi yor lu jëm ci wàllu santé bu fekkee dafa am lu mu imposé mm-hmm. ministre de l'éducation nationale du ko weddi publiquement nañu wax nit ñu lu lay xëy na kon ballon de sonde la woon ñu xam ne jaaduwul jàngalekat yu mais bi Saourou Sène di wax bu njëkk ñun ñëpp a déggandoo woon déclaration bi mhm. ministère de la santé ministère de l'éducation nationale duñ ci dédouané kenn mhm. parce que position bi benn la li am solo mooy balaa ñuy wax ci ay wàllu vaccin nañu tontu ci réponse yi nga xam ni moo gën a jàmp muy école bi nag ubbi ci ay perturbation ci ay accords yi ñuy signé woon te respecté wuñ ko loolu benn école bi ñuy exiger nit ñi ay tenue provisoire yi ni fi gàdd ñetteel bi ci des sortie bu graaw bi Mouhamadou Moustapha Diagne def démb moom mi yor wàllu communication ci éducation nationale mhm. recrutement wu cinq mille enseignants yi dafa wax ni am na enseignants yu joxe seen ay diplôme te diplôme yi ñu joxe baaxul ay diplôme false la dàmbooj ni loolu du dëgg dañoo bëgg a jël rek ñoom seen i ay quota ci biir gouvernement bi seen i njaboot seen i jaxbaat seen i mbokk donc combler ko kot euh, gab boobu noonu tax ñiy tuumaal ñi am ñi nga xam dañu qualifié légalement. Mhm. ñu leen di tuumaal ay diplômes yu baaxul. mais man it bu fekkee le fait ñu commencé di tuumaalatante ki yor communication ministère bi nii bu fekkente ni bi adopté li ñu wax. ñu génne ñi am ay diplômes yu baaxul mais loolu boobu laa leen Sénégal nag li fi am fi nekk c'est grave. kon ñoom enseignement dinañu gis ñu déposer diplôme boo xam ni ne valableul baaxul ki ko déposer nekk fi ni jon ñu ne ko dañu lay sut suturaal au lieu ñu vérifier xool fan la jëlee diplôme bi kan moo ko joxal diplôme bi mais loolu noonu moo li ñuy jàpp ñoom kilifa kay benn la. bu fekkee am na kuy bëgg a bokk ci benn concours ñu déposer benn diplôme muy diplôme d'état état bi xam ne diplôme boobu dañ ko falsifié. bu bëgg ci teg tànkam def naa nit ñi seetuñu gravaayu euh, boobu lépp déclaration parce que bu ñu ko seetoon euh, diplôme ku ko mën a falsifier ci am réew ci diplôme ci état de droit mais mook li ñuy jàpp ñoom kilifa ñooyam kon état bi dafay nës nësal ci ay diplôme yoo xam ne baaxul mu gis ko xam ko teg ci tànkam mm-hmm. nañ nañ nañu nañu répondre ci loolu interpellation démb ba léegi bi ko Moustapha Diagne waxee man maa ngi leen di interpeller te du bàyyi di leen interpeller parce que loolu mook li ñu jàpp ñoom kilifa ñoo yem falsifier diplôme d'état bokki ko ci benn concours ñu détecté ni diplôme bi baaxul mais loolu moo grave loolu duñ ko bàyyi mu jàllee noonu déjà sax maa ngi lire benn message bu euh, Birahim bi jëm ci ña nga xam ne nee na ñu tey dañuy amal xiifal mhm. ci siège u euh, FRAPP euh, ay victime la ñu jàppee seen bopp ci 5000 enseignants yooyu a recruter dañ leen ci beddi